dañoo bëgg 31 décembre lañ leen ci laaj bëriwul diggante 20 ak 30 minutes mooy bu ñeen fukki ñaar fukki waxtu doore tàmbalee muy 20 ba 20 heures 20 20 heures bëriwul jafewul dañu bëgg fu nit toll ci Sénégal wala ci àdduna sax muy riir ndax biñ ko defee le 22 juin TV5 France 24 BBC CNN ba Al Jazeera ñëpp ko ware woon Sénégal il faut ñu woon àdduna bi ni ñun am nañu lu naqari ci ni ñu yoree réew mi léeg-léeg damay sama tournée yi may def damay dem ci àll bi ci village yi jigéen ñi dañuy génn ak seen cin di ma teeru ma xam ni kon concert casserole yeggoon na fu ñu ko xalaatu woon peut-être grande ville yi lañ doon gis dañoo bëgg yow chauffeuru taxi bi yow borom camion bi yow borom jakarta bi yow chauffeur particulier bu la fekkee ci circulation bi à de vingt le vingt deux juin gisoon nañu sax chauffeur taxi boo xam ne casserole yi la jël takk ko ci oto bi di daw ci ni dañoo bëgg bu vingt heures jotee fu nit toll ci àdduna xam ni askan bi kontaanul ci Macky Sall ak njabootam ci ni ñu yore réew mi ci jamono joo xam ne askan bi sonn na loolu bëriwut yow mi nekk sa biir kër ak âge boo mun ci am ak ngay góor wala jigéen le 31 décembre Sénégal war na riir ba suuf si sax di yëngatu parce que Macky Sall loolu rek la xam langage boobu ñuy fàttali nag ñun plan d'action la ñu am ñun Yewwi Askan dañu woote ci ñaar bu ci njëkk mooy 31 décembre concert de casserole ñaareel bi mooy le 6 janvier